Buonasera a tutti, ragazzi vi saluto come sempre, sono Omar e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, a tutta la diaspora che si stanno sempre seguendo. Ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Prima di tutto ragazzi vi chiedo scusa per il tempo che siamo rimasti finora senza aggiornarvi, dovuto ai tempi stretti col lavoro che purtroppo non potevamo abbinare tutti e due ma vi chiedo scusa per questo e oggi cercherò anche a dare tutte le ultime aggiornamenti riguardo tutte le domande che mi hanno chiesto finora. Cercherò oggi a darvi aggiorn aggiornamenti in merito a tutto quello che c'è come novità. Parleremo oggi del pagamento della quarta ratta di REM, parleremo del reddito di cittadinanza, ma parleremo anche ragazzi dei pagamenti NASPI e parleremo anche come lo sapete delle ultime novità che stanno girando parlando di ulteriori proroghe eh, o bonus onnicomprensivo. Cercheremo a dare chiarezza su di questo e per finire parleremo della borsa di quello che sarà prossimo, la prossima legge di bilancio. È stata presentata la settimana scorsa, il 28 di ottobre, al Consiglio dei Ministri e cercheremo a fare chiarezza su di questo. salaamaaleykum mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax mën la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ziar fépp fu waay mën a nekk ci Italie ak li ko wër di jeglu bu baax a baax ci gëj déggante gi donc ak ñàkk jot rek ak nekkoon ci liggéey bi moo taxoon amuñu woon jot bi pour di mën a def vidéo yi à temps mais comme ni leen ko waxee woon rek à chaque fois ñoom temps bu ndaw rek nañ profité defal leen donc mise à jour yi surtout que bëri na ci mbokki taalibe yi ñu bëree bëri ñu may laaj ci lu xew ci jamono ji ak donc dernier mise à alors fi ñuy njëkkee xam ngeen ne donc mooy euh, pagamento rem xam ngeen ne rem bi euh, am na sax ñoo xamante ni ñu jotaguñu secondo rata jotaguñu terza rata ba jamono ji ñoo ngi war a fay quarto rata xam ngeen ne quarto rata boobu bëri na mbokki taalibe yi ma ci doon laaj kañ lañ koy fay ndax jotaguñ ko buñ sukkandikoo ci information yoo xam ne ci IMSS la jóge te mu nekk information yu officielle quarto rata rem bi dinañ ko fay entre le 10 ak le 15 novembre bi ñu nekk donc loolu ay information yoo xamante ni bi donc jëlee nañ ko ci IMS ñoo ngi doon élaborer donc lavorazione yi li ci desoon donc moom mooy indiquer date yi pour mën a fay rate boobu nga xamante ni bi moom moo doon petit rem bi nekkoon weeru septembre te nga xamante ni am na tardement te ñi ngi ci novembre donc kon information bi mooy rem bi dinañ ko fay entre le 10 ba le 15 mooy quarto rate bi te moo koy tëj ginnaaw bi nga xamante ni bi ñëwoon na ci sosseñu uno ak sosseñu bis foofu tamit ñu taxaw fi tuuti def leeral tax bëri na mbokki taalibe yi ñuy laaj ndax rem bi dañoo dégg ne dañ koy prolonger dañ koy yokkaat wala bonus dañ koy yokkaat loolu doonut lu officiel ndax li tax doonut lu officiel mooy buñ sukkandikoo ci communication boo xamante ni IMS génne na ko ak donc def seeni statistique ak li nga xamante ni donc mooy seen bilan jëm ci wàllu rem bi muy sostéño uno ak sostéño bis biñ ko xaymaa liñ dépensé ci xaalis ak liñ fay donc fay nañ ñaari rem yëpp fay nañ leen bu njëkk bi ak bu mujj bi ba war a fay quarto rate bi nga xamante ni bi ñu ngi ko jàpp ci le 10 ba le 15. IMS ci date yi mu génne xam le ne ne xaalis bi nga xamante ni moom la ko gouvernement bi alloué woon maanaam joxoon ko ko pour rem bi xaalis boobu fay nañ ko ba des na maximum des na 300 millions d' euros 300 millions di euro des na ci xaalis boobu noonu pour rem bi. bu buñ sukkandikoo ci calcul yooyu IMS nee na trecento millions yi di euro donc buy couvrir benn weer rek la mën a couvrir pour ñu prolon prolonger waat ren bi mooy loolu tamit day fekk gouvernement bi donc décider pour ñu prolonger ko ak aussi bu fekkee dañ ko war a prolonger pour yeneen ñetti weer di octobre novembre décembre IMS nee na ñoom ci seen i kees dinañ soxlawaat almeno seicento millions yi di euro pour mën a fayaat ren bi yeneen ñetti weer buñ ko prolonger loolu statistiques yi IMS def la rek mais doonut lu officiel quoi parce que buñ sukkandikoo ba tey ci lii ñuy wooye la bozza della legge di bilancio 2022 buñ demee ci capitolo bu ñuy wooye obiettivi programmatici e prevenzioni macroeconomiche fi ñuy tënke wàllu économie xaalis bi ñuy génne liy dugg ak li ñuy xayma jëm ci wàllu aide yi ak bonus yi foofu gisuñu fa benn yoon ci document boobu pour ñu prolonger waat rem bi wala bonus yi donc la jëdi bilan sur 2022 programme wu donc benn yoon pour ñu prolonger rem bi moo tax donc rem bi ba ni may wax yow donc c'est pas officiel kenn mënu ko prolonger ndax déjà xaalis bi doyut te ñëwut ci la sa de la legge bilan su biñ biñ présenté barki démb conseil des des ministres donc kon mbokki taalibe ñu xamé ko nonu rem bi dernier raté bi septembre la won te mom lañuy ñuy fay le entre le 10 ba le 15 novembre bi ñu nekk pour l'instant nak amul proroga gouvernement bi nak néna na bu fekké situation épidémiologique bi fim tollu jamono ji dafa donc wat dayo wala mu yéegaat ñu yeneen décret yo xamanteni ay décret émergentiel la manam ay décret en urgence pour mëna a ñëw au secours di ñi nga xamanteni ñoom ñoo soxla ndimbal loolu ki ko xamle mooy donc euh, euh, gouvernement bi te aussi jàpp nañ ne pour l'instant amul benn proroga boo xamante ni dina am ci rem bi wala bonus yi donc loolu mooy information officielle bi. leneen li ci des xam ngeen ne euh, ministre de la salute fii Italie ñu koy woy Speranza barki démb wax na ci benn interview ne ba tey gouvernement bi dàqut pour ñu prolonger waat lo statut di émergence bi nga xamante ni bi moo ngi war a jeex le 31 décembre 2021 ak green pass bi tamit dàquñu pour prolonger ko ba mars 2022 lépp moo ngi aajewu ci situation épidémiologique bi fi mu ak affaire yi wàññeeku na wala wàññeekut boba boobaa décret émergentiel yu wara mëna mën génn pour prolonger wat situation bobu non te bu féké loolu day amit du ñak yenn ci bonus yi tamit dinañ ko prolonger wat pour venir en aide ci ñi nga xamante ñooy liggéeykat yi ak ñi soxla mais pour l'instant fofu tollu guñ fa donc amu benn document bu officiel bu génn gudd ne dañuy prolonger rem bi ginaaw bi nga xamanteni bi la bourse de la legge di bilancio ñu ko présenter ki démb te buñu ñu sukkandikoo ci capital bu leen wax gisuñu fa benn yoon fu ñuy prolonger donc rem bi li am ci biir boot sa bopp mooy reddito di cittadinanza ginaaw bi nga xamante ni bii dinañ ci indiwaat ay contrôle yu sévère jëm ci donc wàllu réquisites yi ak dem dem ba ci nit ki ay biens maanaam à l'estero dañ ko évaluer te xam ngeen ne loolu ñi koy seq mooy guardia de finance IMS donc ak agence delle entrate pour donc contrôle yi gën a sévère ñi nga xamante ni donc donc ñoom ñoo amee réquisites yi euh, ci biir bot sa boobu ba tey xam na ne ne Reddito di sax donc moom dinañ ko financé waat per tutto l'anno 2022 donc xaalis bi toll na ci quasi un miliardo cinquecento milioni di euro pour fayaat ko ci mille 2022 bi donc am nay changement yu bëree bëri yu ci am euh, bi ci njëkk mooy képp koo xamante ni bi war nañ la liggéey benn yoon ñaari yoon répondre donc automatiquement day day décadéré wu dañ koy dagg ak nucléo familiare boo xamante ni bi yaa ngi ko doon jël te ci biir nucléo familiare bi am ko ci commencé di liggéey di am bourse de paga automatiquement dañ koy dañ koy suspendre nouveauté tey tamit bokk na ci programme nañ koo xamante ni bi yow maanaam li ngay jël ci réducteur sardinane sa donc dafa ëpp 300 euros rek donc de ce fait chaque mois nañ la ci dagg cinq euro ginnaaw bi nga xamante ne bi commencé nga koo jël ba septième mois bi loolu ay nouveauté yuñ ci apporté la dañ ko gën a yaatalaat ci yeneen vidéo bu ko defee donc ñu wax leen li nga xamante ne bi moom mooy donc la legge di bilancio del 2022 lim programmé alors IMSS donc kon niñ leen ko waxe donc amul ben proroga rem bo xamante ni IMSS war na def ndax déjà xaalis bi des na mais mënta couvrir 3 mois ben weer la mën a couvrir bu jotee ndigal ci gouvernement bi ba mom xaalis bu doy donc de ce fait lolu mën nako prolonger mais pour l'instant benn proroga amagut li li am ba am moy rem bi dinañ ko fay quarto rata bi dinañ ko fay donc ci le 10 ba le 15 comme niko ko IMSS ci yenn communication euh, NASPI bi tamit xam commencé élaborer NASPI novembre 2021 donc moment dinañ ko fay à partir du 8 jëm kaw ci mbokki taalibe yi donc euh, bonus IRPF à partir du 23 reddito de del 27 budget bu jot. comme nim donc ci mbokki yi donc xam ngeen ne kon li gën a ci information dinañ vidéo pour wax leen ci paiement euh, enseignants uniphiles yi retard yi ci amoon ak donc ñi ñu war intégrer ci seen RDC yi ak aussi ñi nga xamante ni bii jotaguñu seen enquête secondarata rem wala tertiarata yooyu yëpp dinañ defaat une vidéo pour évaluer ko leeral mbokki taalibe yi fu fu situation bi toll. fi ñuy jeexale mooy mbokki talibé yi war a jël euh, yu am partita IVA xam ngeen ne ci suñuy vidéo yi mujj doon nañ leen wax ci li ñuy woy donc mef ministre de l'économie et des finances ginnaaw bi nga xamante ni la déclaration des redettes 2020 2021 donc jeexoon waroon na jeex le 10 ñu prolongé ko donc ci benn document bu MEF génne woon insieme all'Agenzia delle Entrate ñu prolongé ko ba le 30 septembre donc 30 septembre boobu moom moo nekkoon date limite bi pour tëj donc la déclaration des reddito pour képp koo xamante ni bëgg ngaa def donc la demande di fondo perduto perequativo wala alternative. comme ni ko document bi xamlee woon donc donc euh, date bi jeex na depuis le trente septembre pour ñu waroon a def déclaration redito pour mën a dugal ci bonus boobu noonu di fondo perduto perequativo ginnaaw bi ñu tëjee date boobu nag xam ngeen ne IMF ne woon na benn documento maanaam il ministre de l' économie et de les finances te Daniele Franco jiite ko xam le woon ne donc jox ndigal agence délai intraté pour mu lancer donc demande fonds de perduto préquativo bi desoon ci sosteñu bis bi ñu koy wooyee préquativo wala alternativo waxoon nañ leen réquisites yi par taa donc duñ ci delluwaat ku dem ci suñuy vidéo yi mujj di nga gis réquisites yi xam liñ ci doon laaj lépp donc ci noonu la agence de l'intraté lancé benn document boo xamante ni bi circulaire bu mu génne woon la di 26 86 40 du 13 octobre ci biir circulaire boobu mi ngi ci xamle ne euh, ginnaaw bi mu jotee ndigal demande fonds de perdute péréquative bi ubbi na depuis le 14 octobre ku dem ci surtout agence de l'intrant bi di nga a présenter demande demandes ko mënee defal sa bop wala nga dem ci café wala patronato yi bo yoré yoree ta IVA ta am toutes les réquisites donc ubbi depuis le 14 octobre te dina le 13 décembre kon dina dire ñaari nous objectif biñ ci bëgg nak moy euh, képp ku ko dugal te am réquisites rek 31 di donc ñu 2021 ñu la fay Euh, fon boobu nga xamante ni donc am nga réquisites yi te dugal nga ko kon information bi mooy précoativo bi ñu leen fi doon wax fan yii yëpp demande yi ubbi na depuis le 14 octobre te dina dem ba le 13 novembre ci surtout agence de l'entrata ñuy ñaan mbokki taalibe yi mën nañoo dem ci CAF yi wala Padronat yi donc ñu dugal leen ko ñun dañuy jégalu bu baax a baax ndax jot gi mayuñu ko temps yi pour ñuy def ay demandes. donc képp koo xamante ni rek war nga koo dugal rek boo demee ci CAF boo demee wala patronato dinañ la ko dugalal ci dugal bu gaaw donc jox la sa receveur bu ko defee nga toog xaar entro il 31 di dicembre donc boo amee réquisite rek xaalis boobu donc incha allah euh, dinañ la ko fay. kon loolu moom moo nekkoon information majori yi rem bi seconde euh, quartorate bi koy tëj dinañ ko fay entro il dee ci bala 15. novembre bi ñu nekk euh, fondo de péréquativo alternativo bi ñu leen doon wax demande yi lancé nañ ko depuis le 14 octobre bi ñu génn te dina dem ba le 13 décembre 2021 euh, inshallah donc mbokk yi li moo nekkoon information majeure yi fi génnewoon beneen vidéo dinañ programmer wax ci gën a yaatal nouveauté yi ñu indi ci reddito di bi ak donc euh, bonus bi nga xamante moom mooy moom la ñuy donc assaignon cornicoperfilie yi dinañ ci wax gën koo yaatal wax aussi ci retardement paiement yi ci am mais ñu leen di xamal ne daal amul benn document bu officiel buy wax ne dañuy prolongé waat rem bi wala yeneen bonus yi mais gouvernement bi nee na dàqut bu situation bi évoluer te wàññeeku wut te ñu ngi ñaan mu wàññeeku ba jeex takk ba ñëpp dellu ci seen yitte du ñàkk dinañ génne yeneen décret émergentiel pour xool donc évaluer nu ñuy taxawaatee donc liggéeykat yi imprese yi ak ak ak njaboot gi donc euh, mbokki taalibe yi lii moo gën a ci vidéo bi ñu bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibi Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf